bisimila Ousmane Sonko daa bëgg dellu kaso doonte wér gu yaramam dafa sutante réew mi quotidien mi xëy yeggeeñu ko jàpp na ca ne Ousmane Sonko teraanga pavillon spécial ba ca boppam la bëgg a tut avocat maître Ciré Clédor Ly ci yéenekaay bi di wax li ko waral ne bokk na ci ne usman Sonko daa bañ musiba bii di xeeñ ci jëmmam Macky Sall jël ko këpp ko ñi koy faj moom Macky Sall it maître Ciré Clédor Ly ma ngi koy fàttali lam digaale woon ak kilifa diine yi jëm ci mbiram Ousmane Sonko Sonko mooma it Vox Populi nee na daa bëgg delloo ko ca kaso ba maître Ciré Clédor li ñu fekkati ko ci bileb yéenekaay muy ñaawlu tekkaaralu kilifa diine yi ak àddina bi yépp ci mbiram Ousmane Sonko Sonko mooma Saïd Larifou keneen ci ay avokaam nee na démb dafa xam ba xamatul fu mu ne docteur Cheikh Tidiane Dieye ci libération di ko dëggal ne malaise bu garaaw a garaaw la Ousmane Sonko def yéenekaay bi ne ko moo tax ma nga ca réanimation waaye teewut ay avokaam ña ngay wéyal xeex bi ci wàllu yoon ngir ñu delloo ko ci liste électorale yi jox ko itam ay fiche de parrainage am yor yor bi di ñu yégal ne ay avocat Sonko yóbbu nañu mandataire Sonko bi di Ayib Daffé ay fiche de parrainage booba jamono agent judiciaire de l'État les Échos nee ma ngay jéem a dabu atteb juge Sabassi Faye ndax yóbbu na démb ab recours ca Ziguinchor yéenekaay bi ne roppalaan la dugg naaw na cëpp ca dëkk ba yóbbu recours am ca greffe bu tribunal d'instance bu Ziguinchor atteb juge tribunal booba di Sabassi Faye maître Doudou Ndoye daa mel ni ku koy xajamal ci laas ndax nee juróom fukki at a ngi nii may las booba jamono Walf Quotidien gis ne Macky Sall ma ngay xaajale intelligentsia bi maanaam boroom xam-xam yi rawatina ak universitaires yi Walf Quotidien nee na wuute gi fës ci seen biir ñaari at yi nu weesu mësta am te dara waralu ko lu dul tolluwaay réew mi journal baa ngay joxoñ ay manifeste lettre ouverte ak pétition yu yooye boroom xam-xam di fësal di ca ñaaw lu démocratie bi dellu ginnaaw état de droit bi nërmeelu am ñeneen ca pegg ba ñuy wax lu wuuteeg loola jamono ji Macky di xaajale intelligentsia bi ci gëti Walf bi ci boppam moo poñe université nii la yéenikaay bi xëyee wax ci université bu ndakaaru bi tëj nañu juróomi weer gannaaw bañ dakkalee njàng meek njàngale mi kilifa yi danoo jël dogalu tàllal vacance yi ba ñaar fukki fan weeru décembre yéenikaay bi nag di ragal élection présidentielle bi nu dëkkmal gën a xajamal njàng mi bés bi moom ragal ne la xewoon juin moo nar a xewaat yéenikaay bi xëy ci université yi tëj ne tax na ndoo ngay taxawee tànki xeex te it bulletin de renseignement yi li ñu wone neexul dara ndax lu tàng jër lañuy séentu lataa loolaa yegg si sax bis bi nee na démb tàngoon na jër ndax amical bëggoon def conférence de presse ay grenade lacrymogène lanu leen jóor ñeneen ñu teg leen loxo ca Jurbel ay farando bi Ousmane Sonko rawatina yéene kaay bi it nenu ca Fasek démb jël nanu dogalu dakkal njàng maak njàngale ma réew mi quotidien ci université moo gépp yéene bi ne démb ca Jurbel teg nañu fa loxo juróom-ñaari étudiant mbuur ñu jàpp fa juróom-ñeent ñaari ndongo lanu teg loxo ci ndakaaru ndakaaru googa nag démb université ba rawatina réew mi quotidien nee na tàngoon na jër ndax conférence de presse di ndajeek taskatu xibaar yi bu étudiants yi bëggoon a amal la takk der yi ñëw tasa ki grenade lacrymogène tax yeneen étudiants yi yépp mer ne feek université jàngul keneen du jàng ci mim réew di Sénégal waaye coow li coow li docteur Yankoba Seydi ci Vox Populi nee na tromperie da caa am maanaam naxee mbaay rawatina ak lu ñeel assise de l'UCAD yi kilifay université bi yëkkati ngir bëgg dakkal njàng meek njàngale mi nee na conseil académique bi ñu mujjee def mësuta wax boobaleb dogal conseil bi kay li mu wax mooy ñu dooraat njàng meek njàngale mi nu mu gën dellu ci université yi wuuteeg njàng mi ci xarala yu bees yi nee na mësunoo wax ay mbiram assise de l'UCAD ak participant di ñu cay bokk ñoo xam ne kenn validé wu leen maanaam ñi war a dogal seenu bokk ca yooyu la jotaay defuñu ko bugaan moom ma ngay wéy di defi jéego ci wàllu parrainage bi buñ sukkandikoo ci laas mi ñu ne maillage national la def moom jiital gëm sa bopp maanaam wër na réew mi ak ñaari junneeg juróom-ñaar téeméeri nit ñoo xam ni ñoo koy yombalal wutum parrainage bi xalifa Sall woowale waxtu ca l'info ma ngay ñaawlu nanu koy kare ak di ko bundu ci tournée tourneem gi mu ne yoor yoor bi mel ni kuy feelu l'info naan ki tourneem xajam dëgg kay mooy amadu Ba bët gànnaaru Sénégal gam ne woon jëlewu fa dara lu neex ndax yéene kaay bi nee na daga na toq nite ko fa teeru sàkkal moom jàppante yu mettee fa amoon ba ñu soqi ñaari bali fetel ca kanamam mu yaakaar ne fa la yëf ya yam mu yegg ca njabootu maam Cheikh Mbay bu luga ñu yekk ko fa lu mel ni xemee ba yéene kaay bi nee na jotaay ba amadu Ba dara la ca bëggatul woon Macky Sall moom li mu bëgg mooy ministre am toog fii ci Sénégal wàcc ci terrain bi saytu liggéeyam yi mu santaane naka lay l'observateur mi nu ko yeggee ne Macky Sall fi mu ne bëggatul benn ministre teg tànk bitim réew ngay teewal réew ma di ko defal di ko dindil yéenekaay bi nee na mooy ambassadeur ya képp ko bokk ci représentation diplomatique bu Sénégal noona la ñuy awee ànd ak Sud Quotidien ci émigration clandestine ba ca États-Unis yéenekaay bi nee na njuut njaaj gu doy waar moo ci am yoonu Nicaragua bi yéenekaay bi nee na gaa yaa ngi ciy def lu yéeme ak ngëndum njaay yëg billet avion yi ña jëloon gaal dem bitim réew yéenekaay bi di libération nee na luy tolloog fukk ak ñeent di ay doomi Sénégal jëlee nañ leen ca dans la delloo si leen ci mim réew Macky Sall miy waaj a jóge ci bopp réew mi tàggatoo na ak FMI le quotidien di journalu Madiambal Diagne bi ñu yeggee xibaar bi nee na délégation Fonds monétaire international rafetlu nañu leadership di taxawaayu président Macky Sall diggéene sax daanu ñoqiwaat téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci milliards jébbal Sénégal ñu des ci mbiram koppar ndax libération ngi ñu yëgal ne benn milliard bu teg téeméer ak ñaar fukk ak ci ay millions koppar yi nu roñee ci li bato yi napp si fii te jóge bitim réew fay gannaaw mise en demeure bu anaam def yéene kaay bi nee na société booba tëgg wëndeel itam alamaan nanu ko juróom fukki million yu mu war a fay coowal candidature colonel Cheikh Tidiane Mbodj libération nee na fayagut ndax dañu ko convoqué tey ca section de recherche journal bi ne bokk na ci li waral ñu convoqué ko kàddu yi mujjee yëkkati ñu di ko ca toppee salfaañi devoir de réserve bi tegu ci ndoddam tey wéy ba juróomi at gannaaw bu jógee ci larme bi kii it ci l'armée bi la nekkoon ba jóge ci waaye moom mooy luubal ñetti millions yu teg te doon bu boo jaaykatu or réew mi quotidien yeggee ñu ko wëlbatiku xamal ñu ci taggat yaram ne ca Ligue 1 Pape Gueye dana yokk contrat am ak Marseille Lionel Messi booba jamono ca booba lépp yéenekaay di wax ci Ballon d'Or bu Benzema stade moom wax ci ñetteelu bëccëg Ligue des champions bi ñuy jongante tey ne Bayern nag Real Madrid ñetteelu ndam lañu ca yootu ama mi yóotu Modou Lo sunu làmb nee na moo ubbi làngu VIP ya ci Pikine fi ak ak Boy Niang ngi koy waajal ndax moo ko tax a dem France tàggatu ji foofa la ñuy taxaw tey ñaanal leen kenn dal ak jàmm ba ëllëg incha allah